seen site Dakar Matin moo leen di may seen revue de presse ak Pape Alé Niang. Bismillah. njortoor nañ ko dee ne fi mu nekk nii boo deful ndànk dañ dàq Pape Samba Mboup ak Farba Senghor ci biir parti bii di PDS def nañ ko démb si ndaje bi ñu amaloon seen secrétariat national loolu la ñu bi di ko Quotidien xamal tey jii waaye Vox Populi mi ngi ñu yëgal ne Pape Samba ak Farba Senghor lu ñu yàkkul Abdoulaye Wade ak doom ji Karim Wade dañ koo fàtte ci biir yéenekaay bi L'Observateur Pape Samba Mboup ne texet na lii da ay ree sax la may def waaye ci biir Vox Populi nee na PDS comme camion bu amul frein du war a dal nag ci kaw benn miir bu rëy rëy te ñoom dañ ko dimbale sax buñ ko dàqee ci biir parti bii di parti démocratique sénégalais Farba Senghor ne Karim wàdd dafa mession dafa soxor lool ci biir yenn bi di l'observateur ci Vox Populi nee na lépp lu dal PDS ci lu bon mu ngi bàyyee ko ci Karim Wade depuis 2009 ba léegi ku soxor lool la Khalifa Sall moom ma ngay xàqataay ci xëtu yéenekaay bu laas bu njëkk démb nag am na ay délégation élus locaux yu Afrique ak Europe lu mu leen waax nee na leen maa ngi sant yàlla bu baax a baax dafa mel ni maa ngi ci hôtel cinq étoiles di liir di sport di nelaw di ko jóg waaye ma ngay timit manoeuvre ci wàllu politique ndax yéen bi la Tribune mi ngi yëgal ne Malick gàkko ak Khalifa Sall ñu ngi waxtaan ban coalition la ñuy teg jëm ci élection législative yii Abdourahmane Diouf ci biir yenekaay bi du l'observateur ne loolu da mooy ngëneelu opposition bi liste unique te war nañoo gaaw nag xool colonne vertébrale boobu nañu koy defaree ndax nag alternance démocratique ca assemblée nationale mën na nekk fii autorité de régulation des marchés publics Macky Sall def na fa la ko neex yéen a kaddu quotidien ñu ko yëgal Saër Niang dafa waroon a dem mën ko déedéet signal ko contrat à durée indéterminée conseil de régulation bi sax yëguñu boobu boobule ba tax Birahim Seck ci biir yéen a kaay bi di laas ne décret boobu dafa illégal wax ji mu Tine wax ne Macky Sall dana ñaan njekk kii di xalifa Sall ngir mu bañ a doon candidat merloo na lool yaa xam bay ba ci biir yenn kaay bi di Vox Populi nee na du dëgg te nag Macky sàll musta wax ak kii nga xam ne moo di Moussa Tine wala di dajeek moom maire bu Montréal bi nga xam ne mu ngi jàppale Khalifa sàll merloo lool mu Mimi ture lu mu ko yàkkul da koo fàtte tribunal condamné na mbay Ndiaye ngir mu fay bisis 13 millions yéen kay bi la tribune ne lànk na bañ na du ko def Tanor Dieng nee na Macky Sall mooy doon candidat am ci élection présidentielle 2019 loolu ñu yéenekaay bi Le Quotidien yéegal sori na lool ba tax yéenekaay bi di laas na nañ xool dund gi ceeb baa ngi yokk lool diwlin gi tamit yokkaat na jërë ngeen jëf dégg lu leen di dee si soo jëm seen site dakar matin point com incha allah